ñëwee rek même bu xëyoon wootewaat dañ koy gën a namm li tax loolu mooy Sénégal dañ ko dañ ko doon làmb di ko wër waaye biñ ko dajee xam ne ne waaj la tey Dakar ah euh, moom soo sonkoo da koo soxlawul rek waaw ah, Sénégal moom fu fi sonkoo soxla mu fees waaw ah, loolu la yàlla dogal waaw ah. tey ñi nga xamante ne des fois dañuy jiiranteeg moom mag coalition yi nga xam ne ñaar ñett ah non non non yéen yéen yéen a yéen nag di ngeen sonal gars yi xam nga lu tax kenn diiru fi kenn mbag waaw fii nag fi mu nekk non non man xaw ma leen wax dëgg yàlla non non non gars yi nga xam ne nga waxuma waxuma Sonko waaye dallu Sonko sax du seen morom nañ am jom te dem liggéey Sonko duy fode nañ bàyyi ba affaire yi jàll rek lan révélation lay loolu Sonko lu muy wax lu dul ñu gagné assemblée bi nu ko kenn musta gagné dajale fii xaalis bu kenn mustul dajale loolu rek la fi wax sant mbooloo ah non loolu moom mi ngi sama poos mais c'est c'est privé beneen facette